à peine euh, une heure et demie de temps Doudou Ka ak convoi bu mu convoi ils sont venus avec des nervis des nervis armés de toutes sortes euh, d'armes des coupes coupe Ils ñi ñëwaale ak mon fils. Sibir. la population dès que yëpp nous ñu aux alentours du centre de vote jógee di Tachou Sonko Sonko Fignon ñoo fi ñu ils ont fait aussi à leur tour bu ñu

ah pompé nañ leen si bët su ma oto jël ñi jël yóbbu leen actuellement hôpital ay barreel lañ doon tiré si kaw nit ñi parce que lan la ñoom bi ñu ñëwee ñu ngi naan fii ñoo ko moom fii sonko la ñu àndal moo leen nax rek commencé jël ah, ay ay pompe suñu kaw Doudou Ka nag moom na xam ne fii tànk élection muy am Sénégal fii du fi teg tànkam ñoom ay arme la ñu yor ñun ay gars yi fii xeer yor mais finalement mujjee nañu euh, jàkkoonteel ba ils pris justement la ñun suñu activisme fii fu fi ñëwaatee du fi dugaat parce que bii yoon dañu yaakaaroon ni moromam politiciens yi fi ñëw comme ñooñu la dañuy ñëw dugg xool supervisé dem moo tax ñi bàyyi ko mu ñëw mu dugg mais bu mu duggee xool lu muy xool bu muy waaj a dem rek la jël seen nervis yi jël pompe pompe suñu kaw. pour lu tax loolu loolu tax ñu riposté comme léegi noonu la bu du fi ñëwaat fii du fi ñëwaat bu fi ñëw dañuy baare fële du fi dugg si. la non violence. de Ousmane Sonko ñun dañ ko bëgg moo tax bu muy bu mu ñëwee ñun ñu yóoxu mais on a le droit aussi ñu yuuxu suñu leader moom ñoom ñu ngi li leader kenn waxu leen dara ñun ñu ngi aligné wu lu tax léegi ñoom ñu ñëw indi ay blanches mais je pensais que c'est l'état même qui avait interdit le port d'armes dañoo newoon avant la campagne pour la campagne pour xam ne juste dina am sécurité du violence mais lu ñuy gis ni chaque fois constat bu ñuy def violence bi ci mouvement présidentiel. les jógee parce que lu koy témoigner mooy lan opposant bi Guy Marissagna, il y' a pas de problème bu mu démé ñom ñu comme ça qu'on a constaté les violences Nous voulons que devant toute l'opinion et la chaîne internationale merci. et même on a ramassé ici des balles des balles réelles ils ont tiré justement. bu la violence bi violences, mo tax mom ñom lañ bëgg pour gagner non on ne veut pas des députés assassins on ne veut pas des députés violents on veut des députés qui sont là pour le peuple.